analyse yi avant nag ñu dugg ci recommandation yi. waaw xam nga euh, li ñuy wax yoon ak assises yi justice dafa yàgg a nekk problème ci Sénégal waaw ñu koy tuddee ba nga xam ne dañu naan justice su kumba am ndey ak bu kumba amul ndey. Mm-hmm. Euh, tax souvent surtout bu fekkee ne sax ay question politique la pour que juge bi mun a jël décision de façon sereine c'est très difficile. te it comme dañu nekk ci réew moo xam ne léeg-léeg nit ñi duñu doxal yoon duñu xool li yoon wax ñu def ko bu fekkee ne am nga doole sa doole ngay jël rek def ko su fekkee ne bëgg nga toog ci nguur gi tamit da ngay jël jumtukaay yi nga xam ne yépp nguur gi jox na la ko appareil d'état bi nga utiliser ko pour toog mais en même temps Sénégal dafa am li ñuy wax tradition de résistance mm. te loolu dafa yàgg depuis indépendance depuis les années cinquante sept cinquante neuf dañuy génn dañuy xeex dañ koy dañ ko am. Mhm. Euh, loolu nag soo xoolee ñaar ñooñu noonu ngay mën a comprendre euh, logique résistance ak logique conservation de pouvoir nan la fexee ba nga xam ni Sénégal nekk démocratie boo xam ne c'est une démocratie remarquable. Mhm. lii nga xam ne def nañ ko muy euh, justice. dafa ne affaire boo xam ne am na solo lool bu fekkee ne bugg nañu continuer di am état de droit. Mhm. bëgg nañu continuer di xam ne li ñuy wax loi xam nga démocratie. Mhm. ñëwam ci loi la commencé ak respecter loi. Mhm. l'avènement de la démocratie a commencé. parce que loi bi c'est impersonnel. loi bi tamit bi nga xamee ne aussi dañ ko teg ak exécutif bi boo déggee sax ñu ne pouvoir exécutif c'est très important ñu xam lan mooy pouvoir droit mhm. dafay exécuter loi yi maanaam dafay topp li nga xam ne moom la yoon du wax ko teggi mhm. waaw foofu la ñëwal sax ba ñu naan anglais yi ñoom seen terme moo gën am solo mooy rule of law mhm. ñun dañ koy traduire état de droit mais rule of law moo ëpp doole li ñuy wax état de droit donc yooyu dafa am solo ñu kii ko donc ñëw xool yoon nan lañ koy tabaxaat nan lañ ci tegoo ba nga xam ni képp koo xam ne parce que quand même société bi te niñ ko defee woote mu nekk woote bu large nga xam ne lu mat euh, ñett ñeenti téeméer mm-hmm. nit ñoo xam ni fu nekk lañ jóge mm-hmm. euh, boo demee imaam yaa nga fa woon magistrat yaa nga fa woon société civile yaa nga fa woon ancien détenu yaa nga fa woon mhm. ñépp a nga fa woon donc waxtaan wi nag waxtaan wu yaatu nan la ñuy fexe ba nga xam ne dinañ soppi mhm. ba am yoon boo xam ne day taxaw waxtaan wi nag li mu jur mhm. vraiment mën naa ne tubaarkàlla macha allah. man damay ñëw sax ci position boo xam ne tey man moom la presse bi génnee <laughs> man musuma d'accord euh, président de la république nekk président conseil supérieur de la magistrature Hmm. parce que si suñu expérience mooy expérience boo xam ne euh, li ñu dund. Hmm. mooy suñu président yi dañu mus a euh, dañu nekk chef de parti d'abord. Hmm. nekk chef de parti nekk chef d'État. ça veut dire que mu mu ne un État partisan li ñu gën a indil problème mooy État partisan yow da ngay ne partisan yow yaay tànn ki nga xam ne moom ngay layoo mun nañ ne nag. Sénégal aussi man am naa expérience bi. Mm. du magistrat yëpp le président defal ma lii nga def ko déedéet. Mm-hmm. bare nañu ay magistrat yoo xam ne ay magistrat yu mm-hmm. indépendant ci réew mi yu gëm seen bopp mm-hmm. ci réew mi am na ñoo xam ne seen carrière rek la ñuy topp nooy nga mu la fi daf telu daf fi yàggan ah. waaw mm. ah oui daf fi yàgg koo xam ne yow li li ma li ma bëgg nga may defal ma teg la fa mm. bi ci ci nguuru Macky Sall nag li am dafa jéggi tey mm-hmm. est-ce que est-ce que wax nga ko léegi muy euh, li nga xamante ne mooy justice su kumba am ndey kumba amul ndey est-ce que du luy politique bi dugal loxoom trop ci fonctionnement justice bi aussi moo indi loolu. mais moom la. Mm-hmm. politique bi da ci dugal loxoom trop par parloo bi dugal ci loxoom trop. Mm-hmm. te li ñu gis entre deux mille vingt et ak deux mille vingt quatre nga gis juge yu ñu jàpp ay nit yoo xam ne. defuñu dara. Mhm. lu ma deux mille personnes ñu dugal leen. Mhm. mais kooku sooy xool effondrement justice la sama saa que injustice ni ñu koy déggee. Mhm. effondrement la te kooku responsabilité juge yi. ak système judiciaire bi yëpp mi ngi ci. ak suñu système pénal bi mu ngi ci. kooku souvent su ma koy wax dañu may xoolaat ba leen déedéet loolu mënta ne mënoo ñëw deux mille personnes. je pense que Diomaye li mu def aussi c'est sur la base d'une expérience personnelle. tout à fait que daf ko dund moom. dind benn benn benn kii Facebook boo xam ne du dara ñu jéem ni la jàpp ne la ràpp ci koso bi. Hmm. kooku xam na kooku du kenn moo koy nettali ndax justice bi kii na wala di kiiwul parce que. ñoom hmm. ñoom ci seen bopp sax ñoom ñëpp waa waa Pastef. Hmm. ay Falilou jàlloo yooyu. Falilou Diop lu Keita pardon. lu Keita. bind di ah sama frair lii ak laa ñu ne ko ràpp ci kaso bi. Mhm. boobu ci ñi buñ cee génn sax la bokk. donc yooyu yëpp ñoom vivre nañ ko sans compter nag bari na ay yoo xam ne war nañ wax ci justice bi. Mhm. par exemple boo jëlee robe yi ñuy sol. Mhm. xam nga robe yi léegi bu la boo ko jëlee nga xool ko bu fekkee sénégal sénégalais nga doo ci gis sa bopp. <laughs> Hmm. ah bon am bi hmm. loolu moo mooy imaginaire ñun dañu dem jëli li nga xam ne moom la tubaab yi daan def colonisation bi. Hmm. li mu daan indi ci rob bi moom la ñuy def. boo jëlee kàllaama bi ñuy làkk. boo duggee biir justice. Euh, ñu naan xam nga ñun dañu naan suñu langue euh, national mooy wolof ak kii déedéet gis nga làng national dëgg. man linguiste la sociolinguistique dama koy def. sa làng national dëgg. mooy mooy sa mooy sa langue officielle. Hmm. mooy langue bi nga xam ne moom ngay jël ci administration bi. Hmm. langue bi nga xam ne moo nekk sa journal officiel. Hmm. donc ñun. <laughs> c'est le français suñu langue nationale c'est le français. donc kooku tamit war nañ ko xoolaat. am ñu ngi góorgóorlu sax parce que yéen euh, médias yi dañ leen ko war a sant bu baax a baax. yéen a ngi changé. kàllaama bi. ndax léegi pour loo xam ne médias yi ñu ngi koy def maanaam mooy li nga xam ne mooy réalité réew mi làkku réew mi médias yi ñu ngi réapproprié wu li nga xam ne mooy suñu identité donc justice li ñuy wax euh, symbole yeeg imaginaire ñu réapproprier li nga xam ne ñoo ko moom te loolu waxtaanoon nañ ci waxtaan yu am solo parce que même ñoo xam ni dañu nekk ci mode bi mm-hmm. ña nga fa woon ay artistes nga fa woon ne ñoom mun nañu def loo xam ne dina ànd ak loo xam ne suñu ay aada la suñu ay jamono la ak suñu identité. Mhm. yooyu yëpp dafa am solo. yooyu yëpp waxtaane nañ ko. tout à fait ñëwaat ci ci ci lii di recommandation yi. <coughs> Euh, ndax solo euh, bi bokkoon na ci aussi réformer ak moderniser la justice moom nag ay recommandation yu forte yoo xam ne génn na fa bi ñu ci njëkk a mooy. Euh, euh, présidence conseil supérieur de la magistrature wala présence su président ci biir kuréel googu ñii ne nañ dafa war a génn ñii ne warul génn euh, lan la président war a def concrètement au delà de li mu wax keroog. man ci ñi nga xam ne ñoo doon wax ne président dafa war a génn ci la bokk. Hmm. waaw waaye démb. Hmm. Abdou Sango moo nekk ancien ministre de la justice bu Burkina Faso. Mm. loolu nag burkinabé laa ci moi je dis le <laughs> burkinabé des Sénégalais. tout à fait dafa lire euh, tweet président de la République ak di mu doon expliquer que vraiment. Mm-hmm. rek mu woo ma ni ma mais yow lire naa tweetu président de la République bi ni président de la République bi Alioune bu mu génn président du conseil supérieur de la magistrature mu ni man mi mm. Abdou Karim Sango maa nekkoon ancien ministre de la justice mais man. ma présider woon état généraux de la justice yi nga xam ne moo jël décision ñu ni président de la république dootul nekkati président bi kun nañu ay am ay mécanisme yoo xam ne moom intervention mun na nekk ay intervention yoo xam ne dafay rare cas de moo koy andi. Euh, léegi su fekkee ne ñoom ci seen bopp déggoowuñu arbitrage du am day jafe mm-hmm. confrontation problème boobu moom la burkinabé yi am ñu ne léegi nag su fekkee ne am na président de la république bu fa nekk. mun nay arbitrer conflit yi entre les juges. su ko defee moo tax bi président waxee ma déglu ko. ma ne bon nañu xool le modèle le plus efficace. waaw ñu ñu appliqué ko. d'accord li mu wax daal dal na sa xel yow. waaw li mu wax dal na sa xel bi ma déggee mu wax nag. Mhm. ak ni mu ko waxee. kii mhm. na faisait pas un problème. d' accord xam nga c' est extrêmement important. waaw une obsession <laughs> sax. ah, ah. à partir de sa moment là nag. Mm-hmm. bu mu gisee cette liberté bu mu présenté ma ni ah. Mm-hmm. c'est un homme de bonne foi. d'accord <laughs> waaw <laughs> d'accord léegi ñu ñëw ci euh, yeneen recommandations yi aussi mm-hmm. euh, ñu ngi wax euh, instituer une cour constitutionnelle. à la place du conseil constitutionnel loolu également lan mooy nekk les avantages. waaw am na doole. am na doole man d'accord naa ñu am bi ñuy wax nañ am cour constitutionnel man yàgg na pour man. du du du du benn problème. Euh, damay wax ne rek. beneen cour constitutionnelle lañ am mais terewul bi nga xamee ne am nañu benn président boo xam ne c'est un président autoritaire da koo kii. Mhm. problème bi ñu am mooy itam à fois nga am ay institutions yu dëgër. mais nga am aussi un leadership boo xam ne franchement day nekk leadership bu am solo boo xam ne mun nañ ko bu bu am gëm-gëm. Mhm. ci institution yi. Mhm. mais du jour au lendemain mun nga ñëw rek am leadership boo xam ne li ñu tabaxoot yëpp gëmul démocratie. Mhm. parce que aussi tey tendance yi ñu am mooy tendance antidémocratique. France maa ngi leen di suivre ñoom conseil constitutionnel lañ am. lu dëgër la sax nga xam ne day kase ay affaire ak yépp. mais gis naa waa extrême droite ñu ne ñoom bu ñu ñëwee dañ koy taj dañ koy tas. Mhm. parce que euh, ñoom ñu la ñu élire mënuñu comprendre exécutif jël décision et juge yi lool loolu loolu la ñuy tudde ñoom. Mhm. tribunal des juges juge yi ñëw di ñëw di kase loolu. Mhm. te euh, tubaab yi bëri nee nañ euh, ñoom. bés boo xamee ni extrême droite jël na pouvoir bi France rek. graaw lay doon. te loolu tamit ñun war nañ cee bàyyi xel. nee nañ Italie am nañ ay institutions yu dëgër extrême droite ma nga fa mais du def lu ko neex. xam nga Italie bu fekkee ne yow problème mu racisme am na. Mm. bu la waaj ab daf déli la bu la waaj ak kii rek. Mm. dañuy dal sa kaw boo demee Belgique noonu. France du doon. oui France moom c'est c'est pratiquement le contraire. mais c'est un racisme ouvert. Mm-hmm. alors que am na ay décisions yoo xam ne dans certains pays de tradition juridique yoo xam ne dafa yàgg c'est le Rome depuis Rome moo tax extrême droite mu nga fa mais doo ya doo xam sax ndax extrême droite la. Mm-hmm. lu am na solo. Mm-hmm. donc ma ne euh, il faut que ñun Sénégal euh, ñu xoolaat suñu bopp ci lépp. parce que boo gisee même le système présidentiel bi nga xam ne ñu ngi ko am mais dëgg la ko fi indi. Mhm.